ndox mi rek mooy suñ jafe-jafe jaaxal ñu lool nag jàmbat nañ ko jàmbat mënuñu ci dara yàgg nañoo rootaan yenoo nañ paan forage su Baye Laat bu ñu yegsee ba garage su Daaru Musti lañ ko yenn ko noppalu bu ñu noppaloo ba noppalu yenuwaat ñëw. jigéen ñi dañuy rooti un peu partout fu ne ci biir Touba di root di indi di wut ay saret di ko ci teg vraiment nit ñi sonn nañ. su événement ñëwee nii la ñuy mel du duñu tala létt duñu tala fóot duñu tala def neen ndax mënoo am sa gan mu ñëw nga war koo jox mu sangu jox ko mu naan. doo tal leen lu du root ay atti ati ngi ni du daaw du ren amul korité amul tabaski amul màggal benn feet bu Médiyana am ndox amul te dañ ne l'eau c'est ndox ci dundu doomu aadama yi la bokk ndox mi mi ngi am bu bu màggal di jàll rek ñuy tijji tijji robinet yi ça fait plus d'une semaine amuñu ndox ëpp na semaine sama bassin baa nga ne ci biir kër ndox wàccu fa dañoo am kër gi fi nekk mat na bi bidon lépp la ñuy duy ndox jigéen ñi dañuy rooti un peu partout fu ne ci biir Touba di root di indi di ay sareet di ko ci teg vraiment nit ñi sonn nañ nit ñi sonn nañ te it yaakaar naa ne ndox moom population bi même su fekkee sax dañuy dem SDE SDE ñëw branché ko ñuy fay mais c'est mieux moo gën fay moo gën bañ a am ndox parce que ndox mënul ñàkk ci dund doomu aadama fu ndox amul nit mënu faa dund sànq leen sa mënu faa dund waxuma mais léegi jafe-jafe yooyu lan moo ko waral. mais mooy sama problème mooy sama problème bu ma xamoon lu ko waral du ma am problème mooy sama problème parce que problème bi mooy. mënuma comprendre bu feet jotee. Médiana du am ndox bu feet jàllee Médiana am ndox yaa am pourquoi am na lu xew xaw ma ko nag man mënuma koo xam vraiment parce que man nekkuma fii nekkuma ci affaire yi ndox yi xaw ma ci lu bëri. te waxuñu leen dara aussi. non non non. diguñu leen dara. Ah, ah, yëguma ko man de. gisoo leen benn kilifa. kenn ñëwul ci ñun ah sinon bokk xanaa peut-être mu fekk fi waa koñ bi wala ñeneen parce que man ñëwul fi Dakar laa nekk damay ñëw di dem mais constaté naa ko pendant des années amul bàggal wala tabaski wala gàmm xam je ne sais ay kii korité bu ndox di am après rek bu juree daal robinet yi arrêté buñ demee ba mu jàll avant ngay am une semaine ndox mi coulé mais loolu am na am na lu xew xaw ma ne am na lu xew man nag awma ci benn explication kenn waxuma ci dara xaw ma ci dara mais nag man daal bëggoon ñu jàppale nu nu ñu mën a jàppalee ba Médiane yi am ndox ñu def ko su fekkee par exemple nit ñi dañuy ñoom daal ñoo xam nu ñu koy organiser ba na di mën di am ndox fu mu toll yi am ndox comme yeneen dëkk yi moom jaral nañu ko parce que son nañu quoi suñ jigéen ñi fatigué nañu torop toorob dañuy rooti bàyyi fu ne mënuma mënuma xam sax ñoom fi ñuy jëlee ci ndox di indi. ndox mi rek mooy suñu jafe-jafe jaaxal ñu lool nag jàmbat nañ ko jàmbat mënuñu ci dara yàgg nañoo rootaan yenoon nañ paan foraasu bàyyi laat bu ñu yegsee ba garage daaru mu si lañ ko yenn ko noppalu bu ñu noppaloo ba noppalu yenuwaat ñëw paan boobu buñ ko indee buñ ci toggee añ duñ ci mën a togg rek dañuy gont delluwaat dem rooti jiwaat lépp nag coono rek bëgg rek nag ku ñu ci dimbale yàgg nañ koo jàmbat amuñu nag kenn kuñ ci dimbale bu màggal Touba jubee dañuy tëj robinet yi bu màggal gi jàllee ñu ubbi robinet yi muy xelli nu mu neexee lay xellee fépp am ndox bu korite jubsee ñu tëj robinet yi bu korite jàllee ñu ubbi robinet yi tabaski noonu moom daal xew-xew la ñuy bañ daal ci Touba lu am ñu tëj robinet yi ñoom nag jafe-jafe ndox rek nag fenn fu nekk ñu taxaw fa di wut ndox. joxuñu leen benn explication ci loolu. loolu kay moom joxuñ ci benn explication. buñ ko amoon daal moo gën ak nuñ ñu mën a dimbalee rek ba mu am ndox daal buñ sañoon ñu dimbalee ni ko ndax sonn nañ boo déggee nii may waxee damaa tooy démb forage laa yanoo garage daaru musi laa yenni koo noppalu xam nga loolu jigéen ju ko jàppoo foo jaar tooy dama tooy fi mu nekk nii ndax root mi rek nag. problème mu ndox mi nag moom ci ñu yor forage yi la ndax lu toll ni fanweeri forage bu nekkee ci dëkk ndox di manqué jar naa xool. an taxaw ma Diyana bi nag daaw ba ñu ngi ciy dox jàmbaar trop góor ñi jigéen ñi ñu ngi jaay suñuy ticket pour bëgg ku ñu dimbali ñu ngi wër di gasal suñu boppu tuyoo yi di xool waaye liñ gis lépp daal mooy problème bi moom mooy dañoo tëj wan yi fu ndox war a dem nag ñu tëj ko moom ñi ca war a jot duñ ci jot su événement ñëwee nii la mel duñu tala létt duñ tala fóot duñ tala def neen ndax munoo am sa gan mu ñëw nga war ko jox mu sangu jox ko mu naan doo tal leen lu du root ñun daal am nañ problème mu ndox wax dëgg yàlla. root bi métti na root bi métti na torop torop taluñoo léttu gis nañu. kër goo ci dugg bidon yaa ngi ñu rangale xoolal barki démb laa jënd benn mbànd sama dooma ko jënd dafa jënd ndox def ci barigo 5000 la ñuy wër di ko jaay xam nga loolu nag doy na waar bëgg koo booleek loo gën a lee say bu ñu dimbalee ñu jël de. waaw ah, mooy suñu problème moom wax dëgg fa yàlla dañuy root chaque jour dañuy root dañoo root a root ba sonn. man damaa root ba gën a gàtt gis ngeen man ñoo toll nii. ma fàttali ko ba tey chaque événement dañuy root ba sonn waaw. te événement yi rek la ñuy bañ. waaw événement daal moom surtout màggal Touba moom dañuy root root bu màggal gi passé na moom ndox bi ñëw xamuñu nag luy problème bi. te kenn jox leen yenn explication yenn détails yi. déedéet déedéet kenn ñu benn explication nag. te yéen tamit doxoo leen tànk jëm fenn laaj wala yi demee noonu. ah des fois de moom euh, ñi nga xamante bi ni ñoo yor nañ fi ay kii di liggéey ci ay Touba ca kanam ak euh, ànd taxaw Madiyana ñooñu moom doon nañ ci def ay kii ay jéego. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. mais na xamaguñ si fuñ toll. kàddu gu mujj gi. Ah? kàddu gu mujj ah, maa ngi euh, sant rek ah di wax nag nañu dimbile rek def ba nuñ mën a def ba am ndox rek.